li ma bëgg a foofu rek mooy euh, teeluñu lâché waaye gis nga dafa am fooy toll ci réew il faut nga élever wu ñun lu ñu def patriote moo koy def lu ñu def ku bëgg sa réew moo koy def waaye lu ñu def it ku sedd ñi nga nekkal ci réew moo koy def parce que bul fàtte ni ay kilifa dañoo yónnee ñaan ñu ay kilifa dañoo yónnee nañu suñu sañoon doxaleen nii te kilifa yëpp xam nañ ñun toojuñu loolu moo ci am solo ñun dañ doon défendre te set ce même appel à la résistance tey laa ko gën a lancé nañ ma jëf si kon boo eggee foofu te réew mi mënoon nañu continuer fu muy mujjee suñ ci tegoon ñeenti fan Macky Sall daanu na wala ñaar sax mais ku la wax ni du armée mooy jël nguur gi kon mhm. ñu nekk ci problème yi am yeneen dëkk yi am yéegal wàccal transition bi ñaata temps la dugg na fi génn na fi moo tax ñu ne ay kilifa ñaan nañu la bëggoon am am nañ ko ñoom li ñu bëggoon ñàkk nañ ko kon nañu sauver les équilibres moo tax keroog bi may wax Macky maa ko sauver de moom fu mu jullee war na maa ñaanal. ah maa ko sauver. Ah, ba nga génne te ah. ba fekk na ca jamono. su ma bàyyi woon gone yi. waaw ñu continuer lañ doon def. Mm-hmm. tey moom dégg naa taxawal lañ ko sax avion. ñett tubaab yi ne ko foo bëgg a dem mu ne Côte d'Ivoire. dégg waay ah jamono jooju Macky Sall. Uh-huh. suuf rondalam Mermoz a doon dugg toog kon maa ko suwe kon li ma bëgg a uh-huh. <laughs> foofu mooy. li ma mooy ñun dañoo def li ñuy def en toute responsabilité na nag nañu teggi suñu tànk waaye nañ ko encadré ñaari at ko fi dese encadrement boobu la ñu nekk ba léegi. moom nag ñaari at ko fi dese. ah ak ni muy defee fan yi yaakaar nga ne jàpp na ci ñaari at moo ko dese. parce que yow jàpp nga ni. Macky Sall téeméeri junni xelam may na ko mu taxaw ci senegal Sénégalais ne dama bëgg ñetteelu mandat yow jàpp nga ko yow Moustapha. waaw ba ñu yegg ci. du ko def ba ñu yegg ci. ba ñu yegg ci man foofu laa ci yem d' accord alors s'il n'y a pas d' autres questions sur ce dossier là am na loo xam ne également ba euh, du du du sori loolu te dégguñu la ci lu bari euh, muy la loi sur euh, l'homosexualité am na sax quelque part ñu reproché à Ousmane Sonko que ni manifestation yi ci mujj def teewu ca Euh, lan mooy sa position sur une loi criminalisant l'homosexualité d'autant plus que ñi fare ci nguur gi le président de la république lui-même wax na ne li ci li ci def depuis 68 moo fi ne ba léegi kenn soppeeku ko te moom xalaatul di ko soppi. wax jooju waxu ku daanu saret la. waxi criminalisé wala waxu Macky Sall. waxu Macky xam nga sax ma wax ko. Macky mhm. bi ñu génnee ci événement mars yi. du may métti lool. Mhm. dafa ne loi bi ñu voté woon contre le terrorisme mhm. da koy xoolaat yokk ko te loi boobu 2015 rek lañ ko voté woon lan moo tax pour kaaraange boppam parce que tiit na loi bii ñu voté ci homosexualité mhm. ñu koy voté homosexualité melul woon nii non newul woon un phénomène mondial boo xam dañoo yor seen agenda ne léegi dañ koy imposer réew yëpp melul woon nii mhm.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 man damay féliciter d'abord waa ànd jikko yi sàmm jikko yi te di wax ni sénégalais buy sénégal da leen war a féliciter lu ñëpp bokk nag bu amee ñu ko taxawee te yow munoo ci dem da leen war a gërëm te di leen ñaanal te nit ak noo bon bon bon sama genre yi euh, genre euh, <laughs> nga xam ne li yàlla xam doy na waaye boo dee nit boo demee ba foo gis kuy def lu baax sa xol bon war nga xoolaat sa bopp. bu ñuy tënk. ma daaneel boo ci boppu réew mi ma ma daaneel dinaa tontu ci loolu. Hmm. boo demee ba foo gis kuy kuy def lu baax sa xol bon war nga xoolaat sa bopp. Hmm. parce que loolu mooy le degré le plus faible de la croyance. nit mu bon bon bon ak sa say vice ak lépp soo gisee lu baax d'accord ni lu baax la.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 yàlla dafa ne ku sàcc nañu dagg loxo bi te loolu amul Sénégal dafa am loo xam dañ koy jël pour dissuader da nga ciy jël lu mën a nekk fi limite bi yem nga xam ni fii la limite bi yem kon bi ñëwee may leen man mënoon ngeen bañ a ñëw sax bokk naa ci ànd naa ci première manifestation bi ñu defoon maa nga fa deuxième bi maa ngi woon si soo di jël service mais premier bi dem naa ci manifestation bi fi ma d'accordul ak ñoom ci ñaar la Mm-hmm. gannaaw bi ma leen féliciter encore ci seen courage te ne leen nag qu'il soit fort parce que Sénégal dafa am ñoo xam ne yu mel ni la bañ a gis te ku àndul ak ñoom rek ñi ngi xool ni ñuy yàqee sa der lu ne dañ la ko tuumal te yaa ngi dégg lañ leen di tuumal mm-hmm. mais qu'il soit très fort te nekk ci li ñuy nekk te xam ni quatre-vingt-dix-neuf pour cent des Sénégalais sont avec eux mais ñaari ma d'accordul ñoom benn bi forme la mooy dafa am ci ñoom ñoo xam ne dañu jàpp ni mbir niñ ko gisee rek nga ko war a gisee boo leen nee ah d'accord nañ ak quatre-vingts pour cent waaye am na vingt pour cent bu ma ne d'accord ma rek ñu commencé wax loolu nañ ko travailler parce que du noonu la ñuy doxale yonent bi sax da daan toog laaj avis mu am ku ne d'accord ma ak ni loolu mooy àdduna ñaareel bi mooy liñ ñu ñëwee wax ak man dama leen ne gannaaw ma leen ne ànd naa ci ba pare dama bëggu ñu ngeen xool loi bi ngeen koy bindee man mii sax pare naa pour bokk ci ñuy bind loi bi hmm. parce que loi dafa am lu koy bindee dafa am lu ñuy wax ci droit légistique